bëgg a ñu bàyyi la ñu delluwaat si seen i activité wala 3 milliards yi i bët leer na seen i nopp. bi mooy morso bi. grève bi ñu def mooy morso bi. mooy ci lañ comme que bàyyi nga dem beeg dikk bi bàyyi transporteurs yi ubbi kasano yi ñu nit géwël yi dañuy ñaan rek waaw dañuy ñaan rek sa parcours bi nga def sa audio whatsapp bi nga defoon naa ko man la Ouzin Mbaye waaw du lu ma li président Macky Sall wax daa mel ne moo tey moo indi tey lii loolu moo indi lii lépp ginnaaw yàlla ak yonent bi loolu audio moo indi lii lépp waa moo indi inspiration yi ndax gëm naa ne nag suñu président dinañu bàyyi ñu dellu suñu liggéey pandémie booy dëkkati sabar yaa ngi mosatuñ dara booy danseurs yi ñamatuñu taasukat yi maire yi daan dem ci laabaan yi ñamatuñu maire yi daan jokkalante laalatuñu dara ñu ni nekkoon ci làmb ji di wax mosatuñu te géer ñi wuyatuñu téléphone lii lañu wax ni nañu ko bàyyi musiciens yi abu ñaata musicien na ci réew mi te dundatuñu quatre mois géwato day dundalee ca famille comme dimbali nañu transporteurs yi dimbali hôtel yi dimbali nangam ak nangam nañu dimbali musicien te dimbali géwél yi ñun ci culture la ñu bokk ak communication culture ak communication le ministre la culture Abdoulaye Diop mu baax mi suñu xarit suñu soppee dañu lay takk dañu lay jiin dimbalil géwél yi sonn nañu barki rasulullah man buur dix mille dix mille trois mois ngi laalu ma dix mille trois mois mars j'ai pas eu dix mille francs metti na donc lii wax jàmm dong ñu fii nii. 3 milliards yi taxu leen a marché. 3 milliards dañ dem seen activité yi. waaye 3 milliards yi buñ ci mos a leen jël. xoola lee ngewel lee ngewel gis nga ngewel la gis nga maa leen di fay di leen wax ni rek li ñu fi dajale du taal pono wala baara tali wala indi benn violence mais dañ leen di wax ni géwël yi sonn nañ ñetti weer géwël tëggiwul géwël joué jiwul géwël demul parce que doo ci dem kër kenn di ko wayaani parce que koo dem rester chez vous la lay wax kon nag ñun yéen ñoo leen gën a neexi kër fop kër géwal goo dem lu neex lañu xam moom la ñuy lekk ci fu baax la ñuy tëdd te suñu métier rek moo ñu koy may ñun waxuñu ngeen may ñu dara bàyyi leen ñu ñu tëggi lañ leen wax état bi dañ ko ni ngir yàlla ni mu bàyyee école yi ubbee ko marché yi ubbee ko casino yi ubbee ko salle d'entraînement yi na ko ubbee liggéeyukaayu artistes yi loolu rek la wasalaam waaw ñu àggale parce que ñun maa ngi gis sax ay géwél yoo xamante ni xaj na ñu ngi arrière ci ginnaaw te loolu waru leen. géwél daawul arrière. géwél daawul arrière. ñun ay doomi géwél lañ. ñu yar ñu xam lan mooy rôle lu géwél mooy def lu baax wax lu baax. fii lépp lu fi mës a ñaaw rek géwél moo taxaw defar ko. mu am nag loo xamante ni dafa am ci réew te boo waxee ñu ni xaar leen edd yaa ngi ñëw encore une fois ma wax man Mbaye Sy Ndiaye musuma toog di xaar edd dama koy wax mu leer tooguma di xaar edd président génn na trois milliards def na li ko war mais man tooguma di xaar lool man li may ñaxtu xam nga mooy lan ñu bàyyi ñun ñu liggéey parce que loolu loolu ñun mooy sunu ñaxtu parce que tey président artistes yi ak ñu ñu toll tey bu nee artiste kat rek bu ne artiste du rek woykat rek bu ne artiste bi ci la bokk waaye théâtre kat bi ci la bokk peintre bi ci la bokk te tey ba ci kay bongo ba ci ñiy fecc ñëpp kii yatt ak ñoom ñëpp ay artiste lañ kon tey jii bu ñu boolee 3 milliards ba ku ci nekk toog yaakaar ni tey 3 milliards yi bu dikkee ku ci nekk da ngay dem tabaxi étage affaire bi du lool may nit ki jën jàngal ko ñu ni nappee ku gën te ñun lu ñu mën a am suñu métier moo ñu ko gënal li ñuy ñaxtu nag di ko wax xam nga lu mu doon. lan la. son excellence président Macky Sall ñun ci réew mi lañ dëkk ku fi mës a fallu rek ñun teewal ñoo la fal. suñuy maam ba suñ doon yàlla tey jii tey. ñuy ñaan rek dañuy ñaan monsieur le président de la république am na benn audio bu ma def barki Dembo Ndiaye. loo ca wax moo indi lii lépp ne am di mbay. man la Ousseyn Mbaye Macky Sall de français la doon wax. boobu ko doon laaj. doo ma dimbali ngir yàlla wax ma li mu doon wax ci olof. bàyyi na géwël yi ñu tëgg wala bàyyiwu leen. looloo indi coow mu indi coow. kon loolooy wane ne géwël ñun ay auteur de voix lañ. lu nu wax àdduna dégg ko. xam nga loolu lu ko waral. respecter sa liggéey fonk sa bopp bëgg sa bopp fonk say mbokk. géwël bu bëggul mbokkam doo géwël. tey képp kuy géwël jàjj ak sugeer wuyu si nañu. ñuy ñaan monsieur le président nga dimbali ñu rek ñu dem continuer suñu liggéey ci jàmm ak ci salaam li ñuy gërëbee nag Secka wax na ko Mbaye si wax na ko du taali pëna